والآل وصحبه ذوي النوال الوالي هذا وإني اليوم ذو توسل لو بأسماء ذوي التفضل فقلت يا قريب يا مجيب السلام عليكم maa leen di nuyu sama client yëpp tey waa Allo Dakar yi ñu ngi seet si woon ndax produit yi may jaay comme nit ñi dañ ko soxla lu bëree bëri te xamuñu fi ñuy jaar loolu moo tax ñu ñëwoon tey gën a léegi man nag maa ngi nekk en face police Parcelles Assainies léegi di magasin bi nga xam ne naa Carrefour céramique am carré de luxe rek lay dal di def carré yoo xam ne ay Italie Espagne moom rek moom lay def moom ay grès poli grès mat grès porcelaine antidrapan même xeetu karo boo bëgg rek doo ñëwee fii moom dañ ko fekk yépp disponible na yu bëri am na ay parquet pierre naturel yëpp am na soo ñëwee daal moom am na choix bu bëree bëree bëree bëri waaw te nañ ci def xewal yu jàppandi te karo yi moom du ngeen ko gis fenn moom loolu du ñu koy garanteel ne du ngeen ko gis fenn moom waaw soie bi bëri na am na ay dimension tamit yu wuute yoo xam ne day am mat am poli comme soo soxla am na ñoo xam ne day ñëw soxla dimension 30 60 mat 60 60 poli du am mais fii moom foofu soo fi bëgg rek da koy am soo gee 120 120 mat 120 120 poli même couleur yëpp ñooy bokk 30 60 mat 30 60 poli soo bëggee même carreau escalier am nañ ci ay carreau yu mucc ayib yoo xam ne day nekk. Euh, benn masse lay nekk quoi du am juin waaw pour pour iskay lekk la ne day nekk 30 sur cent ci 15 120 nga xam ne du am juin du am dara am na ay carreaux toilettes yoo xam ne day mel ni comme comme da nga am euh, comme comme yoo xam ne da nga da nga am cabine yoo xam comme seetu lay mel soo ñëwee ci biir ndax du am juin ndax day nekk dimension normale xam ne du cabine bi nekkee 120 wala 2 mètres 40. wala 2 mètre 88 yooyu yëpp da koy am kar yi ne am pièce yoo xam ne nekk 2 mètre 88 waaw moom xeeti kar boo bëgg rek moom soo ñëwee fi moom dina jàpp naa di nga doo di nga di nga ko am moom waaw fii ci Carrefour céramique moom numéro téléphone moom ngeen 77 669 65 30 waaw en face police pastel 77 669 65 30 waaw loolu mooy suñu numéro suñu mel